tâche yu bëri Ndella Madior Diouf ma am mbégte dalal la pour la première fois ci dem ak Tay di la gërëm ci disponibilité bi voilà maa ngi lay maa ngi lay nuyu euh, di nuyu tous les auditeurs donc de Demb ak Tay donc kontaan naa trop euh, nekk sa invité euh, pour numéro bi nga xam ne mën nga ko jagleel mm-hmm. alors ñu war a waxtaanee euh, Ndella sa jaar-jaar wax naa sànq laal nga ci politique ndax élection yu bëri jaar na fi amoon nga objectif nekk présidente de la République du Sénégal euh, laata loolu nga waxoon fi sa candidature aussi ci ci élection législative ba yaakaaroon ni 2012 da ngay da ngay dem toog ci bopp assemblée euh, nationale parité bi aussi nga gëmoon ne mën na la fa yóbbu alors Ndella lu tax nga bàyyi fi yenn mbir yi nga xam ne peut jigéen ñi si lañ gën fës nga tànn samp rajo bu mel ni Safir FM ak tey lépp li média di jonkonteel comme difficulté mais ñu commencé d'abord ci politique bi lana la ci xiiroon ba nga jàpp ne yow daal fi góor ñu toog tey di doxal war nga faa dem. Ah, maa ngi si ba léegi <laughs> maa ngi si léegi <laughs> génn nga boobu si parce que je suis candidate à la, à la présidentielle en 2024 ah oui. de parti politique su fekkee euh, da nga su ñëwee doo bokk mën ngaa seeyal parti si beneen parti. man maa yore trois centième parti du Sénégal donc légalement constitué euh, après Mariam man maa nekk deuxième femme euh, fii sénégalaise bu créer parti politique euh, même si que j'ai créé mon voilà donc. tax euh, ba 2018 nga doog am récépissé. voilà ah ay jafe-jafe yu bëri euh, ah donc bon soo demee ministère de de l'intérieur ils vont te parler de problème d'adresse adresse bi ma njëkkoon joxe après mu tuxu donc euh, bon finalement on a retrouvé les dossiers après man ma foog ne woon dañ may coince ma gedd donc ab récépissé en 2012 dem donc jiite sa parti taxawu askan wi. donc ma joxe sama 20 millions caution après jiite sama liste nationale voilà après année yi di dem di dem ba 2018 ma ma defaraat lépp. recommencé waat tout à zéro et euh, ñu jox ma naturellement sama récépissé Aly Ngouille Ndiaye man moo ma jox sama moo signé sama récépissé. lan moo tax 2018 nga décidé defaraat lépp. Euh, waaw parce que euh, xam nga dama doon ñaaw njot après finalement je me ne xaaral naa rafet njot comme léegi naa defaraat tout à zéro et j'ai repris le dossier du début jusqu'à la fin

enquête yu defaraat ku defaraat lépp daal. et après bon tout s'est très bien passé on a repris les enquêtes et puis on a on a on a refait les statuts et après ils m'ont donné euh, carrément le le récépissé et puis voilà donc léegi maintenant élection bu jot mun naa def sama liste bopp dootuma àbbati récépissé et puis dootuma loué récépissé. et voilà <laughs> parce que lu nekk am na Sénégal. Mm-hmm. donc là je suis complètement euh, donc euh, libre de de participer à une quelconque élection élection bu taxaw rek muy législative muy muy local muy présidentiel dama si war a bokk ndax dama jiite parti su ma si bokkulee mérité wu ma am parti d'accord ñu ñëw ci laaj bi lan a waral peut-être domaine yi jigéen yi gën a fës tey nga ba ko fa ñëw buuxante góor ñi foofu waaw donc euh, su fekkee da nga bëgg a bokk si euh, si luy jëmmale kanam réew mi donc il faut nga bokk si décideurs yi te pour nga bokk si décideurs yi il faut que nga créer sa parti politique élection su jotee euh, nga nga dugg si su fekkee am nga ay ay xob yu bëri mm. ah donc euh, centage bu am am solo nga nga nga bokk si soit nga nekk maire wala nga nekk député wala nga nekk président de la république wala nga bokk si ñu ñuy tànn pour diriger réew mi donc nekkatuñu monarchie on est dans une république mm. maanaam donc démocratie moo si moo ci euh, mooy mooy mooy mooy nekk la base de tout mm. ak la majorité ëppalee xob rek donc euh, da ngay gagné élection wala nga nekk deuxième wala nga nekk troisième après kii jiite si kaw mun na la tànn pour ngeen ànd liggéey réew mi. donc euh, loolu loolu mooy politique donc le politique étant l'art d'organiser une cité maanaam naka la def ba defar suñu dëkk. pour mu pour mu jëm kanam ressources minières yeeg ressources lépp lu fi nekk naka nañ koy organiser ba euh, dëkk bi nekk dëkk buy jëm kanam bu mën a compétir ak yeneen dëkk loolu il faut faire de la politique ñiy wax dañuy def politique dañuy comprendre rek mais la politique vraiment ñëpp ko war a def pour bokk ci organisation réew ni ngi organiser kër ba kër taxaw noonu la ñuy réew euh, parce que réew c' est une c' est une agglomérat wu famille la quoi euh, loolu moo tax euh, taxawuma di xaar góor yi xëcc ma ma ne écoute comme que man je suis née pour diriger xam nga dafa am ñoo xam ne dangay judd pour diriger. waaw du ci ñooñu nga bokk. ci ñooñu laa bokk je suis pas une suiviste man du nekk si ginnaaw di xaar ñuy diri ma nee na man damay jiite man loo mun mënti gis damay koy jiite. waa su ma je suis pas du genre à toog sama place di xaar. Euh, ñu ne ma li nga ñuy sedd ma man du man damay séddale. Mm. waaw euh, man damay séddale damay diriger damay damay damay diriger c'est que man góor la en réalité quoi waaw ah. ah, waaw moi je suis une femme homme quoi <laughs> kon daal chef la quoi je chef man man chef la. man chef am na ku ma doon waxtaan yële suñu benn mbokk mu ne ma yow lingeer nga lingeer maanaam euh, si at si dans les temps anciens euh, buur bi da jox sa sa kuréel. soreel la nag dëkk bi nga dem nga sànq nga dem nga dem sànq sa sa sa këru bopp sa mbootaayu bopp ndax da ngay da nga da nga nekk jigéen mais une femme pour diriger sa c'était lingeer et moi je suis une lingeer. d'accord léegi yow lan moo la xiir si politique bu ko nekkoo Linguère si leneen mais nga ni politique ñëw jiite réew mi. lu toll ni réew. mooy mooy mooy yoon boobu rek la. parce que c'est la seule voie pour accéder au suffrage universel pour accéder au pouvoir boobu rek mooy yoon bi soo bëggee dem assemblée nationale da dangay da ngay da ngay si politique moo la fa mën a yóbbu nga bëgg a nekk maire sa gox nga diriger ko gérer ko toppatoo ko. politique moo la fa mën a moo la mën dugal quoi loolu moo tax quand j'ai vu Mariam Wane lii ba mu njëkkee créer parti politique ma déglu ko après bëgg ko sama maman la sama xarit la et puis j'ai créé naturellement euh, un parti politique parce que xajuma si beneen parti mm. j'ai essayé des alliances j'ai essayé des alliances après damay xat duñ ma xàmmee sa nit yi ñu ma xàmmee di ma kër gis si télé bi nii la calmé parce que may fàtt parce que damay alliance nga jot a am si sa parcours bon il y donc avec euh, Fada Warwi de Warwi euh, il y a eu Sopi 2009 après euh, j'ai fait une coalition euh, parti Taxawu Askan Wi donc c'était un parti c'était un parti ma récépissé bi après jox caution bi dam bon après euh, c'est 2012 hein 2017 c'était avec Magueye je pense pas Magueye comme Mamadou Gueye Mamadou Gueye donc CCN Hein, donc après CCN, euh, il y a 2019 avec euh, Madiké 2019. voilà donc après si laa man coalition san xanaa coalition bi ma jiite man de la ma jox mm. mais coalition boo xam ne damay dem seeyi daal euh, ça ne me réussit pas. ñu jiite la. naturellement naturellement quand je suis dans une coalition je suis damay damay fàtt. Mm. damay fàtt damay joxe sama nag abale lépp tous les biens que je ma dama abale mais après. gars yi duñ ma jox gëdd bi moo ma war a jox da ngay confronté à à cette euh, à ce statut de femme bi nga xam ne jigéen góor ñi moom la ñuy xoolee après bugg ñoo ber au sein d'une coalition euh, jagleel ñu à la limite la mobilisation ñuy suivre rek. tàccu beeg sol yére yi. voilà voilà voilà voilà et puis et puis voilà te ça c'est pas Ndella Madior Moi, je suis femme pour diriger, mhm. voilà alors est-ce que si sa alliance yooyu effectivement am na histoire boo si boo si dund bu la marqué boo xam ni laa góor ñi dañ la dañ la néewal wala dañ la négligé parce que yow jigéen nga ndax bët boobu en général moom la góor yu bari di xoolee jigéen ñi si surtout si wàllu politique. voilà toutes les alliances dañ lay dañ lay euh, euh, dañ lay euh, bàyyi xel ragal la mhm. bëgg la néewal doole waaw toutes alliance yu ma fa jaar yépp c'était des à la au finish ça s'est terminé par des par des déceptions terribles parce que man au départ damay ñoo joxe lépp gëm ko. maa koy gën a gëm sa ku jiite coalition bi. ba dañu mel ne pop pop pop Ndella tu es mais après bon c'est des c'est des coups bas hein, parce que tu es une femme parce que voilà quand tu dois te tu nga war a toog ci place jigéen quoi et puis euh, ñoom ñu ñu ñu nekk si kaw di jël grande décision yi. Mm. alors que am na loo xam ne yaa leen koy dàq foofu. mbiyaani ndi punch mbiyaani ki ëpp euh, donc ora mbiyaani ki ëpp euh, euh, jàmbaar mbiyaani ki ëpp mais duñu bëgg hmm. duñu bëgg nga tàkk duñu bëgg nga tàkk ñu bëgg nga demal sa bopp donc léeg lay bëgg a naaj dina am ay affaire décisions yu importance yoo xam sax da nga koy dégg da nga après nga koy dégg hmm. donc au au fur et à que ñuy avancer ces alliances ba ñu ba ñuy lay gën a jàng ba ñuy xam yow bomb nga que tu es que tu es là pour pour pour diriger pour chef nga quoi donc dañ lay ragal commencé ragal kii ñu feeñ waaw wala kii euh, les différents sous-alliés ñu nekk suuf di dañuy bugg di ñu bugg la dañu la bugg a jox certaines responsabilités yu mag au niveau des alliances après euh, parce que dañu bugg ki nekk ci kaw copte la ba mu ëpp hmm. après ñu kii léegi mu nekk ministre <laughs> suñ koy seetaan day jël suñu place Ah voilà loo ngi gis te demee ñoo la fa njëkk. voilà yaa da nga lay fay jiitu mm-hmm. euh, sax. da nga lay fay jiitu sax donc parfois da nga lay fay jiitu lu si bëri sax da nga lay fay jiitu et puis li ngay joxe sax ñeneen di nga ko joxe mais c' est que des problèmes. c' est que des problèmes femmes yi jigéen ñi daal du am reconnaissance jigéen ñi daal duñ leen toppatoo bu baax du leen euh, duñu seen euh, qualité ak liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey au sein d' une coalition loolu coono bi ngay daj pour ni benn kii nekk si kaw nga defar ko mu gën moo tax man xaw ma naka l'avenir naka lañ koy lan mooy am suñu kanam mais fas yéenetuma bokk si benn coalition boo xam ne man jiitewu ma ko man Ndella Madior. d'accord bi ngay taxawal sa parti bi ban yéene nga amoon euh, ban yokkute nga bëggoon peut indi lan moo nar a nekk différence bi ak parti la Moi, quand j'ai créé une partie, le, mon parti politique Réconciliation nationale pour l'unité africaine, c'était tout simplement pour être président de la République du Sénégal. de léegi ba kañ lay doon mën a nekk 2024 bi euh, wala 2029 ou bien 2035 euh, on verra donc euh, affaire bi liggéey la donc nit ki tamit doo nekk ne dama bëgg a nekk président de la république nekk semaine coin da nga foog ne da nga nekk président de la c'est du travail. kon yow yaa ngi liggéey nii si loolu. maa ngi si loolu donc Ndella Madior avec mon parti dafa saf sàpp nag. Mm. je reconnais que c'est très extrêmement difficile xam la tax difficile. Mm. depuis 2000 dañuy assister beneen façon politique Sénégal. politique ko xaalis. voilà gars yi dañuy ñëw ne la dama lay jàppale en réalité dañuy ñëw ut si ndimbal. képp ku la wax si parti politique en général damay ñëw jàppale la. Hmm. yaa koy jàppale au fait dafay ñëw pour ñu dimbale ko. mais c'est que c'est c'est ça la politique sénégalaise nit ki ñëw dina dina maa ngi par exemple Mbour de ndee la dinaa jàppale indi la mbooloo xam nga lan lay xaar en retour. Hmm. pour nga jox ko budget mu mobiliser budget pour sensibiliser. budget pour ni nga location chaise bâche t-shirt loolu rek ngay dégg. li si mu def ci poosam. li si des mu def ci poosam mais mais au côté kooku moo waroon ut ay militants militants yi cotisé ak cotisation militants yi ñu lok ñu loué chaise ak cotisation militants yi ñu fay seen meeting fay euh, toute la sonorisation. di nga campagne man 2012 campagne naa ba pare fépp fu ma jaar balaa may génn minimum 500000 700000 dina fa war dama doog a ñibbi. ah oui. lépp lu ñu loué pour accueillir la dañ leen ko remboursé finalement ki coûte c'est extrêmement difficile très cher di leen xaru pour nga ñëw seet si la ndee la il faut nga ñëw mobiliser naa la je je am na soo ñëwee di nga kontaan mais balaa nga fay jógee di nga remboursé lépp boo ñëwee ñu jox la facture piège la piège la balaa nga fay jógee mais écoute li may teg moom la ñeneen ñi di rek balaa nga fay jóge donc loolu militant yi foog ñuy bàyyi loolu yow su fekkee danga ne da ngay jàppale nit ki d'accord nit ki mi ngi attendre su ñëwee am mobilisation certes mais doo ko rembourser loo tous les frais c'est ça la politique bi loolu la de. boobu ku doon jàppale la en tant jigéen ngay dépenser loolu yépp ñi ma doon jàppale bëri nañu fans yi bëri nañu. voilà donc euh, il faut pas oublier en 2000 euh, comment il s'appelle man maa jiite woon CAP 21. ah te maa ngi doon dugg-dugg. CAP 21 mooy kan mooy CAP moo doon parti yi nga xam ne ñoo soutenir woon maître Ablaye Wade. ñu ñu ñu daanu woon noonu. Mm-hmm. kon ku jiite CAP 21 rek déjà loolu palmarès la. waaw ki jiite Palmarin Palmarès était avec un faible taux de participation en 2000 en 2012 ok donc euh, am na ay mbooloo yu bëri euh, si mbir mbooloo yi fan si muy ëpp loolu mooy politique Sénégal. Mm. gars yi dañ lay bëgg. dañ lay fan ñëw bokk si sa parti. wala du ñu bokk si sa parti ñëw. di mili di di di di di la financé lu financé gisuma. ok ah gisuma kenn koo xam ne yëkkati 1000 francs jàppale ma si euh, campagne yi ma def yëpp. maa ko financé sama bopp si laa la wax que campagne euh, Sénégal dafa cher dafa métti képp ku ñëw ne da lay jàppale mun dund en tout cas man personnellement dund guma que ñu kenn ñëw yëkkati un million wala ne serait-ce que mille francs ne lii maa la ko jàppale. kon sa xaalis bopp nga doon jël di ko def sama xaalis bopp laa financé sama activité yëpp activité politique yëpp 2012 sama xaalis bopp euh, bu mujj bi si Madické 2019 euh, Madické jàmbaar la jàppale nañu jox nañu xaalis bu bëri mais teewul ñun tamit doole nañ si hmm. waaw d'accord alors lan mooy sa programme lan nga am loo xam ni tey boo ñëwee euh, ñu la joxoon tey Sénégal wala ñu jox la assemblée nationale wala en tout cas nga yor la booy indi ci dundinu askan wi yépp man déjà en tant que chef du parti de la réconciliation nationale pour l'unité africaine suñu programme dafa simple la mooy nag rendre la dignité aux Sénégalais fexe ba nit yi di juddu dans la dignité di si màggee dans la dignité jàng dans la dignité liggéey dans la dignité feebar dans la dignité ba faatu dans la dignité donc phrase boobu rek moom mooy moom mooy squelettu sama programme d'accord tout s'articule autour de ce de ce maillon donc de la naissance à la mort que le Sénégalais soit digne nit il faut nga juddu dans la dignité d'accord pour nga juddu dans la dignité sa pap ak sa yaay bi bi bi la bi jur seen xel dafa war a dal dans un ménage ça pose le problème de un problème social, mmh. ça pose un problème de travail, ça pose un problème de santé, de meilleure santé du couple pour une meilleure naissance. Donc une dignité à la naissance. Après la dignité à la naissance, une dignité dans l'éducation. dignité dans l'éducation mooy faire en sorte parce que les gens oublient que moi je suis médecin de formation donc c'est pas une femme qui qui fait comme ça de la politique c'est une femme universitaire. waaw dinañ ñëw si loolu. voilà une femme dinaa la laaj effectivement li tax nga bàyyi médecin bi na lee. ah non j'ai mon cabinet médical j'ai j'ai ah recruté mon cabinet médical. et je recrute des euh, qui gèrent la consultation. d' accord donc euh, <laughs> di nga gis benn clinique médicale boo xam ne ki ko moom sa du nekk médecin mm. ah donc des sages-femmes dañu fi créé clinique et cetera et tout donc moi en étant médecin euh, je n'exerce pas je que sensibiliser les problèmes de santé et puis euh, je laisse les autres euh, exercer parce que sinon da ngay craquer sama activité yi politique ak communication doy na sëkk et de mère de famille doy na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk donc voilà donc dans la vie il faut faire ce qu'on ce qu'on est ça je suis pas détachée de la médecine quand je parle tout tout s'articule autour de la santé donc on revient sur le programme quand on revient sur le programme donc je disais que l'éducation xale bi nga xam ne judd na ba pare da nga koy yar da nga koy yar ba mu màgg donc tout ça c'est c'est c'est c'est tout un programme donc problème d'alimentation d'éducation de scolarisation donc filles filles et garçons donc euh, tout ça c'est c'est des c'est des programmes pour rendre meilleur cet enfant qui est né et qui doit grandir et qui doit franchir des étapes ay étapes yu bëri bëri ba nekk waxamande donc donc de la maternelle à l'université ça c'est c'est tout un programme mm. voilà donc fexe ba xale yi nekk ci école yu baax fexe ba xale yi nekk si lycée yu baax collège yu baax donc ak internat parce qu'il faut qu'on retourne à l'internat donc euh, pour euh, une meilleure éducation une mise en meilleure prise en charge de nos enfants donc suñu fa jógee am université yu baax vous avez vu université yi nu mu feesee On a un pays magnifique, de l'eau, de la, de l'océan Atlantique, le fleuve Sénégal nous entoure, d'accord? La Mauritanie et Guinée-Conakry, Guinée-Bissau nous, nous, nous entourent du nord au sud. Donc ce que, ce qui fait que pour euh, il faut que ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu exploiter espace bu bëri bi ñu am pour euh, l'éducation, pour euh, la formation donc de nos de nos enfants. Université, chaque région dafa war am université am ak campus universitaire am. uni euh, Cheikh Anta Diop nu mu surpeuplé du dëgg du gis naa nag y' a beaucoup de, de beaucoup de pavillons qui ont qui ont a beaucoup d' efforts hein. quand tu passes à l'université Cheikh Anta tu réalises que bon écoute ñun euh, à l'époque euh, on avait des pavillons euh, euh, un là donc euh, après il y avait une surpopulation là j'ai vu que le président Macky Sall quand même a fait des efforts pour toj tabaxaat maintenant surpopulation bi la ñuy la ñuy critiquer donc il faut décentraliser faut décentraliser, ça veut dire qu'il faut construire dans les autres régions du Sénégal, faire en sorte qu'il y ait des campus universitaires correctement, euh, dignes de leur nom, pour euh, accueillir euh, ces étudiants qui ne demandent qu'à apprendre. Mm-hmm. Voilà. après l'enseignement, c'est le travail. c'est le travail, c'est le, il faut de l'emploi, il faut de l'emploi pour les jeunes. La preuve, euh, récemment, il y a eu des, émeutes au Sénégal. Mm. Euh, les gens ne sont pas levés tout simplement pour Sonko, non, ils sont levés également pour ras bol quoi, mm. parce que ras bol comme de quoi. Donc récemment, j'ai dit au président, il faut savoir décoder les messages. Quand les Sénégalais, ils recevoir ça, ils kiff mais ils vont te dire dëkk bi dafa métti. Mm. am nañu kersa boobu ne d bi dafa métti koo wax mu puis ok sénégalais yi jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu xoolal coronavirus bi nu mu nu mu nu mu bloqué toutes les activités mu temps ñu ngi résister. Mm. donc euh, ne serait-ce que pour ça vraiment dañ état Sénégal dafa war a sacrifier lu bëri réorienter beaucoup de choses euh, pour l'emploi des jeunes et je pense que ce qu'il est en train actuellement ce qu'il est en train de faire et puis euh, il doit il doit doit vraiment euh, mettre en place un grand budget pas ay cinquante milliards ak i cent milliards parce que y a énorme la population sénégalaise elle est extrêmement jeune mm. elle est extrêmement jeune donc beaucoup de milliards euh, dirigés par des gens extrêmement généreux qui vont pas euh, bloquer les choses faire comme les banques mais financer facilement les projets des jeunes. les former les accompagner. Mm-hmm. voilà si sa programme voilà. voilà si sa programme bi euh, jigéen nga da ngay da ngay bañ. te yaa ngi aussi ñaawlu peut-être ni ñuy def yenn jigéen yi si si si yenn secteurs yi ñu nekk euh, justement lan nga jagleel jigéen ñi tey boo ñëwoon lan moo nar a changé ci dundu jigéen ñi. ah que tout euh, on va valoriser les femmes. Mm. déjà à à à diplôme égal salaire égal donc euh, dans l'administration et dans le secteur privé un peu partout en général góor ñi ñooy ëpp salaire jigéen ñi et ça c'est pas à diplôme égal normal il faut essayer de rectifier cette inégalité pour euh, gën a accompagner les femmes donc les femmes il ya a il y a tellement de frustration des de frustration da ngay gis jigéen bu bu def ses cotisations sociales ba ba faatu et après y a rien jëkkëram ak doomam duñu mën mën a recevoir des pensions alimentaires. lu ñu rectifier la moom. y rien c'est quoi cette histoire donc ça veut dire que la personne a y a cotisé pour rien du tout tu meurs et après tout s'arrête Ça, c'est des, ça, c'est une injustice qu'il faut que man. C'est pourquoi je dis, euh, quand je dis je veux devenir président de la République sénégale, c'est pour régler beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustices envers les femmes. Mm. D'accord La fonctionnaire qui, qui, qui, qui meurt, euh, tout s'arrête. C'est pas normal. Euh, à part ça, il y a les problèmes également de, de, de, de reconnaissance de paternité. Okay. C'est une forme d'inégalité. Mm. Ok Donc, euh, la femme n'a pas le droit de déclarer déclarer. donc daal day soxla ku góor kii pour. Euh, déclarer le le le le nom du père de de l'enfant de de sa de son enfant c'est c'est extraordinaire quand tu pars aux États-Unis moi j'ai accouché aux États-Unis j'ai déclaré le nom de le le le papa de mon euh, de mon de de mon fils ça y a encore problème di ngi nekk foofu di demander obligatoirement la présence du père jigéen bi mooy def mooy remplir formulaire bi et puis le problème est réglé ah donc mais ici. il faut que papa yi déplacé wu sinon c'est la mère pour déclarer mais turam lay joxe. Hmm. et à la place du papa on va dire euh, euh, x euh, donc euh, y aura rien. et ça ça peut être c'est des traumatismes au niveau des enfants si elles ne sont pas s'ils ne sont pas préparés. D'accord? Des inégalités, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, donc il faut qu'il faut réparer. Hmm. Donc euh, la parité au niveau de l'Assemblée nationale qui n'est pas appliquée. on parle de parité partout. parité partout au niveau des listes au niveau des plus fortes au niveau des commissions au niveau du bureau de l'Assemblée nationale donc gis nañu ce qui s'est passé donc au départ maintenant ils même des efforts quand ça les arrange. quand ça les arrange donc ils appliquent la parité euh, partout au bureau mais quand ça les arrange pas ils piétinent ce qu'ils veulent donc c'est des choses vraiment ils ont l'habitude dañuy am habitude dépense bu bëri mais loo c'est pas normal ah donc moi en tant que femme chef de parti futur président de la République du Sénégal boo xam dama koy liggéey donc euh, beaucoup de femmes beaucoup de choses vont changer euh, sur le traitement bi nga xam ne dañ koy jox jigéen ñi mm. waaw. mais est-ce que topp sentiroo benn genre ñi yenn responsabilité ñoo les femmes léegi jigéen yu ñuy créer parti ñu ngi commencé bëri. Mm-hmm. ah man bu ma créé ba pare après Zahra Iyane créé y a donc euh, Fatoumata donc il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des partis politiques. Ça, c'est bien. Donc, euh, et là, je les encourage. J'encourage également d'autres femmes à créer des partis politiques parce que plus nous brillons. plus ñu bëri ba mën a def benn coalition de femmes chefs de parti si li gën a pour mën a changer beaucoup de choses pour les femmes. donc mais jigéen ñi en général ñu duggee si si si parti góor yi rek. dañuy faral di seey. après kenn dootu leen gis ñu nekkaat militante. donc waaw dafay métti parfois. parce que mm. dafay métti dafay métti euh, da nga bëgg a ne jigéen suñu déggee si coalition yu mag yi. waaw dañuy dañuy nekk chef de parti après bon pour certes pour les femmes qui n'ont pas suffisamment de de de grand caractère quoi parce que affaire bi. xoolal man j'étais je quand 2019 euh, avec Madické quand tout a foiré finalement à la fin j'ai j'ai pas hésité à à quitter la l'opposition et à rejoindre la maison présidentielle et puis quand je suis partie quand j'ai vu que euh, jox ñu ma woon sama gëdd comme li ma mérité woon j'ai encore parti ah donc je suis pas du genre à me caser comme li nga wax léegi et à devenir une simple militante di tàccu lu war a am ñu ne ndee la tey fii la ñuy dem parce que lii moo am après quand il faut donner certaines responsabilités ñu séddoo ko seen biir non non non su ma gisee lu mel noonu rek je je quitte voilà donc euh, je suis pas une militante simple d'une coalition je suis un allié et euh, quand si on me donne pas un rang d'allié je pars Demb ak Tay ngeen di teewloo ci Rewmi FM ñuy dalal Ndella Madior Diouf euh, jiite partie euh, léegi nag bëgg nañu xam tamit lan moo la inspiré dem ci politique est-ce que Papa Madior ñu ngi koy nuyoo passage moo la moo la xëy na xiirtal ci politique wala loo bëgg la ndax wax nga ko sànq euh, def nga euh, médecin de formation nga mais du tax nga nga nga teg médecine bi ne le ñëw ci politique bi fës ci lool nag bala ñu ñëw ci femme on est médecin et femme et femme chef de parti en même temps on est médecin et femme et patronne de presse en même temps voilà donc euh, qu'est-ce qui m'a est ce qui m'a poussé à faire de la politique c'est j'ai très tôt compris que soo bëggee nekk euh, faire partie des décideurs ñi ñiy dogal su fekkee da nga bëgg bokk si ñuy dogal il faut nga nga nga def politique loolu mooy loolu mooy loolu mooy organisation loolu mooy yoon wi. du woon pour assurer relève papa Madior. non au contraire on parle pas de de la politique avec mon père. il ah refuse de parler politique avec mon père donc. <laughs> lu tax du wax <laughs> ah politique moom muy homme politique refuse. <laughs> quand on est à table di euh, reer wala añ la donc euh, il refuse de parler politique su ko si waxee rek. su si waxee dafa ñàkk pexe quoi mais il s'interdit de parler de politique à table donc il parle de la famille et puis de tout parce que c'est ton papa il voit ndee la sa fille moom doomam la gis ah ba léegi doomam bi bu mag bu xale lay gis quoi moom gisul euh, la grande Ndella que les gens voient mon père Madior ne voit pas ça ah bi ngay dem élection lan la la wax bi nga ne da ngay dem présidentielle c'était extraordinaire hein donc j'étais à l'époque j'avais déposé ma caution donc euh, bu mu demee ba xam ne caaxaanuma nag que dem naa déposé caution ba ñu jox ma sama récépissé xam nga soo déposé à la caisse de dépôt de consignation te donne un de dans récépissé je viens je lui montre que j'ai déposé mon mon donc euh, voilà quoi donc on parle léegi li def rek mooy dem. Euh, euh, ministre déposé. donc da ngay defee aussi li da ngay déposé Après, voilà, tu pars au ministère euh, de, de l'Intérieur pour déposer les dossiers maintenant, des dossiers des candidats. Après, nous, commission bi siéger, nous défendre et puis nous accepter. Voilà, donc c'est une expérience extraordinaire donc, que j'ai vécue en 2012 en tant que chef de, de, de, de, liste, tête de liste. Voilà, donc lui, il a paniqué quoi, quand il a vu que Tiaran parce que j'avais le problème nerf de la guerre, c'était l'argent. Okay. Donc, je l'ai déposé. Je viens lui montrer, écoute, j'ai déposé, donc euh, comment tu as fait écoute bon dajale naa jëlee xaalis <laughs> et donc euh, le chèque a été certifié et puis on l'a déposé à la caisse de dépôt et de consignation bon il appelle mon petit frère qui est à Washington pour dire qu'on a déposé une caution donc day yàq xaalisam et que baba écoute écoute baba il a il faut la laisser faire la politique ce que tu peux faire donc euh, laisse-la faire la politique ce qu'elle veut faire voilà donc après moom bon d'accord donc euh, et après. le temps léegi daf ma faa. ah voilà léegi daf léegi était tout fier de de voir que sa sa fille finalement a a réussi à faire un petit parcours même si jusqu'à présent je suis pas allée à l'Assemblée nationale mais force est de reconnaître que lu xew si dëkk bi dina ma laaj si mon avis et que Ndella Madior et Ndella Madior en dans Sénégal quoi mm. donc là bon elle est toute fière de tout fière de de de sa fille voilà. d'accord malgré tentative yooyu peut-être mooy dernière question bi ci wàllu politique lan moo tax nga yaakaar ne ba tey doxagul demagoo assemblée bu dee nekk goo maire est-ce local déjà intéressé na la. local intéressé na bu baax je veux devenir maire de Fimela donc local 2014 yi passé nga xam ne maire yi fa fal woon ba léegi ñoo fi ne mm. euh, j'étais dans la mouvance présidentielle du président mouvance présidentielle avec Macky Sall en tête donc euh, ñu yóbbu ma Fatick j'ai affaire faire des réunions là-bas donc maintenant à la dernière minute euh, comme j'avais j'étais tout en confiance ma bàyyi leen ñu sama carte d'identité et tout ils ils l'ont retiré voilà xam nga loolu moo taxoon ma mere leen bàyyi leen génn en 2014 donc Matar Ba moo nekkoon dans la dans la zone là-bas te maire de maire de Fatick et les réunions le faisaient dans son bureau donc euh, voilà donc ils ont ils ont ils ont retiré le nom alors que affaire bi raw gàddu la woon quoi. Hmm. justificatif et que tu n'étais pas parmi les premiers on voulait pas te mettre en 27e position peu importe même si c'est en dernière position ra gàddu la ñëppay jàll. Hmm. Donc, j'étais dans, la, dans une mouvance présidentielle où les gens ne voulaient pas que je devienne même conseiller à kon loo xam nga c'est grave bëgguñu sax nga nekk conseiller à Fatick. c'est noonu lañ ma éjecté moo tax y a ce vide. je suis su ma nekk woon mais sa waroon naa nekk conseil. conseil waaw nga xam ne am nga dara ci parcours bi. am naa dara ci parcours bi mais te te ñi nekk conseiller maa leen mën maire ya fa nekk sa maa leen mën donc pourquoi sama statut. de médecins, de, de, de, femmes chefs de parti et de, de, euh, de, de encore patron de presse les dérange à ce point, et de femmes les dérange à ce point. conseiller euh, municipal. Absolument. Hmm. Oui, je dérange. C'est mon, parcours, c'est mon parcours qui n'est pas un petit parcours. Je ne pas une vendeuse de charbon. donc, euh, je suis une la Major. <laughs> et même Alors, si les vendeurs de charbon je les respecte beaucoup parce que chaque jour dañ koy soxla ah mais je suis une femme. médecin li nga jaar ak li nga doon waroon na la mën a may. nga nekk conseiller plus waaw conseiller sax am na yoo xam ne dugguñu école. kon naka ngay amee benn conseiller médecin nga bëgg a teg fa lay jël ba conseil boo xam ne jàngul école du bàyyi ko si mairie ba donc donc c'est n'importe quoi voilà donc législative yi nag lu tax doxul ba tey. bon législative yi doxoon na pratiquement en 2012 ans donc doxoon na pratiquement il y avait un faible taux de participation et après man maa waroon jàll ils préféré jox ko Diop de Croix qui a pris ma place. Mm. parce que su fekkoon da nga appliquer la parité au plus fort dama waroon dam. ok mais ils parité au plus fort man maa njëkkoon déposer pour contester les les les les résultats et puis euh, ils m'ont écouté mais ils m'ont pas donné raison. voilà, ils m'ont pas donné ma place, ils ont préféré donner ça à Diop de Croix. Mmh. Donc c'est des, des, injustices, euh, donc parce que je devais aller à l'Assemblée nationale. Parce qu'on parle. De... Absolument, nous Et je venais d'arriver à une, à une, personne parmi les organisateurs des élections, il me disait que Moulonio Ligue, l'Assemblée nationale, il est posé. Voilà, tu as vu ça. Donc Moulonio Ligue, l'Assemblée nationale. Voilà, d'accord présidentielle bi nag lu tax pour yow ba tey nekk ko présidence. présidente ba nga ko waaw xam nga dama koy wax. après su ma demee ba si biir xam que c'est l'unité qui fait la force comme récemment en 2019. c'est l'unité qui fait la force donc j'ai dit kon ma njëkk a retiré sama sama candidature. après maître Adama Gueye je pense. Mm-hmm. Euh, topp si et puis et puis voilà quoi mais malheureusement. Euh, les coalitions n'étaient pas, n'étaient pas très bien organisées, de Idi à Sonko à, à Madike, Issa. Donc, euh, c'était des problèmes d'organisation. Le temps était trop court. Il n'y avait pas suffisamment de représentants au niveau du bureau de vote. On a tous perdu. Et puis, pire encore, ils ont refusé d'introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel de, euh, pour les élections de la présidentielle de 2019 passée. Le résultat, maintenant, tu as vu, maintenant, Merbi, Niti, maire bi unité maire moom moo waral émeutes yi passé donc ils ont déversé les billes ils ont cassé un peu partout voilà et euh, force est de constater que les Sénégalais sont sont très fâchés et que euh, la politique du président de la République euh, et les gens ne sont pas tellement contents parce que gisuñu seen bopp ñoom gis nañ gis nañ seen bopp mais askan bi gisuñu seen bopp voilà donc pourquoi Ndeye Lab jusqu'à présent euh, n'est pas président de la République du Sénégal mais c'est tout un parcours quand on crée un parti politique c'est pour devenir président de la République c'est pour devenir maire c'est pour devenir député c'est pour devenir conseiller maintenant euh, li euh, mun nga mun nga manquer chance nekk ci coalition yoo xam ne euh, ñëpp du mun nga fa liggéey mais ñeneen duñ ci liggéey après suy yàqu yéen ñëpp si conséquences yi c'est valable pour vous euh, bon y a pas eu beaucoup d'élections man benn élection laa fi def xam ne maa ko jiite sama bopp. Mm. ok moo doon 2012 2017 euh, j'étais avec euh, c'est euh, Mamadou et ça n'a pas marché également parce que bon il, il la seule. je peux dire star de la coalition après bon maa ngi dikkee 2019 euh, on avait toutes les chances de de d'arriver en deuxième ou troisième position toutes les chances ak Madické ak Madické bah oui bah oui mais bon donc euh, euh, mais malheureusement euh, on n'a pas beaucoup de bon ceux qui devaient travailler correctement pour pour sécuriser le vote ne l'ont pas fait et on a perdu on a perdu euh, voilà on a perdu et puis c'était terrible quoi. Mhm. voilà alors ba tey dem ak tey bi ak euh, nag Ndella euh, patronne de presse euh, média yu Sénégal ku nekk xam na ne jafe-jafe yu bari dañ koy jànkonteel dinañ ci ñëw peut-être si si détails yi mais lana la xiir ci ci taxawal rajo di jéem a def ay station yu bari jiite encore. voilà li ma si xiir c'était j'ai naka laa ko mën a expliquer encore naka laa ko mën a expliquer quand j'ai vécu un. beaucoup de difficultés au niveau de ma formation médicale, en voyant également le manque de médicaments, euh, donc euh, le manque d'équipements chirurgicaux, médicaux au niveau de toutes les structures hospitalières Sénégal yëpp ma mère ma ne damay créer association bu tudd SOS santé donc pour jàppale maladie ba ma ko defee il fallait tout un programme pour promouvoir ko. Mm. may def don de sang. Euh, lu gars yi di def nii boof dama ko def depuis 94 92 93 donc sama xarit yi di ma si jàppale falaa xamaay artistes yi parce que je te que coûte à ce que joxe seen deret ce qu'ils ont fait pour la plupart donc euh, programme bi ma dem nag RTS bu ma demee RTS ñu accueillir ma si la ñuy découvrir que j'avais une voix radiophonique et moi quand j'ai mis le, le casque j'étais j'étais pratiquement tombée amoureuse de ma voix j'ai écoute ma voix elle est magnifique ça j'aimerais bien continuer de le faire Et là, si la Adama Sow à l'époque ne ma naa ko animé la ma ñëw di ko door tous les mercredis sur Radio Sénégal International après Sud FM donc en 94 juillet donc je suis euh, les dirigeants de la radio Latif Coulibaly qui m'a reçu qui m'a donné sans sans hésiter une émission bi dafa gàttoon par semaine mm. donc j'ai monté Santé FM Après, j'ai monté Radio Touba International. Après, j'ai monté euh, Saphir, euh, Simal FM, beaucoup de... Au, au finish, actuellement, j'ai cinq fréquences. kon nag toogoon foofu ñu lay jox ay heure neexu la woon. nga daal yow foog nga jiite encore. voilà kon déglu nga ma bu hmm. baax donc une heure boobu moom moo quoi. J'ai dit à Chérif, elle va essayer ànd ko yàlla yéenam ma ne ko Chérif moi je veux plus d'une heure donne-moi au moins une heure de plus une heure dafa gàtt quoi parce qu'une heure d'émission avec un professeur comme Awa Marie Coll tu l'invites euh, donc une heure de temps c'est vite passé quoi donc euh, ma xeeb ko léegi ñu bañ ñu ne ma jox benn heure supplémentaire donc je crée ma radio voilà je vais créer mmh. Santé FM. non je dis donc ma radio je suis juste née pour diriger man loo ma xëy ma créé ko sama d'accord nga génn Sud FM noonu. voilà je crée ma radio. ok voilà. noo créé rajo ndee la jóge ci animatrice rek yow samp rajo. waaw créé fekk maa ngi def samay télécentre boobu maa ngi def serveur vocal après télécentre communautaire 65 francs l'unité yi xaw ma ma dossier ma kii ko après j'avais beaucoup de télécentres donc accumulé beaucoup de versements et puis euh, avec le serveur également j'ai euh, pris euh, acheté mon matériel à Lomé après mu ñëw taal ko quoi dans ma maquette il fallait avoir une fréquence donc je suis partie voir euh, le conseil en communication de Abdou Diouf à donc il m'a dit que toi, fréquence, tu l'auras, parce que c'est une radio de, qui doit sensibiliser sur les problèmes de santé, on peut ne pas te donner une fréquence de radio quand même. y aura ma fréquence, oui. Et puis, euh, c'est comme ça, j'ai allumé, après, je m'étais intéressée à la technique. yaa doon animé. maa animé, oui. maa installé. nga jël ñaata heure. Euh, ci santé euh, là, maintenant, je. <laughs> da ngay wax ba doyal wax ba doyal. <laughs> toi, tu m'as, tu m'as bien suivi. On m'a empêché d'avoir deux heures de temps. eh bien j'ai eu 24 moo ma indi tamit si xam nga moi j'étais même pas bien répondu à la question je partie en à New York j'ai rencontré euh, le président de la République d'accord il m'a dit mais toi ma fille yow dama laa gëj gis foo nekk fu réer yow. ma ne ko ah demandé naa Ablaye Wade xam nga dafa dafa neex Ablaye ma ne ko. ah man demande naa audience ba son Dakar mu ñib maa ngi fii damay insté damay def fi benn formation bu ndaw rek si affaire télévision sur internet et cetera ma teel a jóg si affaire yi mm. donc euh, c'est en 2003 mu ne ma équipe euh, ak yéega si ascenseur bi ñu yéeg ma recevoir léegi naturellement mm. voilà donc on a pris l'ascenseur garde corps yi bloqué ndee la man ndee la président moo ko wax mu yéeg après on est monté ma reçu un pilover euh, relax euh, ñu waxtaan waxtaan xam nga dafa mën a waxtaan. Mm. dafa mën a waxtaan après mën a écoute on va pas prendre une photo ici parce que je suis en pilover mais je viens à Dakar je te reçois je te reçois correctement et euh, on va prendre une, une photo correcte quoi et ce qu'on a fait. Et puis quand je venais à Dakar, maintenant Madame Baye Pour euh, le rendez-vous, euh, il a fallu comment programme quoi. Alors mm. que le président avait dit que tu viens à Dakar, je te reçois et je finance tout ce que tu tout, tout à fait un problème quoi. Mm. problème. Donc quand le mais finalement euh, on m'a programmé, je suis euh, à 12h, il waaw Ablaye Wade moom su la joxee rendez-vous moom da ngay xamal ne yàq nga sa journée da ngay ñëw ah toog si salle d'attente xaar. <laughs> da xaar ba sonn di la lay wax bii di minuit yow une heure du matin la lay recevoir quoi. après quand il m'a reçu il a donné des instructions finalement les gens n'ont pas euh, ces instructions. Hmm. ma mère ma kon fi ngay toog laay toog. Ah. fi ngay toog kon fu mu toog ah d'accord man ngeen di provoquer je crée mon parti et je vais me <laughs> c'est ça la nature de kon loolu moo tax dëgg dëgg dëgg. dëgg dëgg ma créé parti politique voilà. ma créé parti politique. comprendre xam nga fale dañ ma xañ une heure de temps. ma créé sama ragaam samay 24 heures. bii je voulais voir le président encore ma ne kon ñu xañ ma ko ma ne kon chaise bu là je suis après j'ai créé madame laajte information comment fait pour créer un parti politique dem préfecture. ah préfecture ñu jox ma liste bi parce que foofu ngay dem. Et puis, euh, tu pars à la préfecture, on te donne le formulaire donc, pour euh, les pièces à fournir. Montre mes pièces à fournir parce qu'il faut 3 000 francs pour créer un parti politique au Sénégal, pour ceux qui ne savent pas. Moins de 10 000 créer un parti politique, il faut avec 10 membres fondateurs. Donc après, on, l'a fait et tu commences à tes activités politiques. Voilà, après nag c'est tout un parcours il a fait plus de 27 ans de position non. Mhm. nekk doo créé politique rek participer si élection léegi léegi rek. gagné mënta ne léegi nag da koy fas yéene ba keroog jooju muy sotti. d'accord xam na mhm. Ndella Madior 2000 2021 ak Ndella Madior 2004. yàlla ak yàlla sa mi ngi massifié wu yàlla ngi yokk mi ngi massifié wu mi ngi massifié wu au niveau de de des départements on a 45 départements on a plus de 500 collectivités locales donc les gens avec les réseaux sociaux c'est devenu beaucoup plus facile mais xam nga le problème du Sénégal moom li ma commencé émission bi mooy que dama lay ñëw jàppale non dañuy ut si ndimbal. <laughs> d'accord <laughs> dañuy ut si ndimbal te loolu mooy difficulté bi ak l'infiltration. ki ñëw nekk nu mu tudd sax euh, nga mu nekk la responsable des jeunes ou la responsable des femmes euh, nga feeñal ko fësal ko bu mu ëpp dalay war dalay war dañ koy ñëw jënd c'est ça la difficulté de de de de création de parti politique maintenant le nerf de la guerre c'est d'avoir de l'argent si tu as l'argent les gens les autres petits partis dañuy accepter ñoo derrière mais nag euh, après c'est des maîtres chanteurs hmm. ils te demandent de l'argent sinon ñu def ñu keneen jënd leen et puis c'est des c'est des c'est des trahisons en fin de parcours euh, terrible ah donc euh, politique u Sénégal dafa dafa salté quoi n'est pas propre d'accord ñu dellusiwaat ci ci ci organe de presse bi donc jógee nga Sud FM taxawal sa sa rajo di di di di def say euh, sensibilisation ba ba doyal alors euh, noo def ba peut être yegg si Saphir bay dem si yeneen station bon c'est un parcours euh, très passionnant dem si maa ngi si bind livre parce que je ne peux pas ne pas écrire un livre sur mon parcours magnifique là donc j'ai un parcours magnifique qui doit servir d'exemple donc des gens peuvent même faire un, un une benn thèse parce que c'est un parcours de de de 27 ans pratiquement de depuis

Donc, il euh, y a Touba, il y a Siali, que j'ai eu à redémarrer avec beaucoup de, de facilité euh, au mois de euh, mois d'août 2020, euh, et qui on est actuellement au-dessus de la B6. Voilà, donc il y a Simal également, euh, où c'est pratiquement 1000 mètres carrés en bordure de mer. Hein. Mm-hmm. On met là-bas une radio hôtel. Okay. Voilà, donc d'abord, d'abord, France, mon parcours, mm-hmm. parce que Djambar là, comment qu'on jàmbaar laa ma wax ko sama bopp bi billaay la Madior jàmbaar la dégg nga wax ji damay jàmbaar damay jàmbaar de rajo bi wala def cabinet médical wala média bi waa si lépp jàmbaar la yan jafe-jafe nga ci ci ci nekk femme de média patronne de presse oh je suis trop généreuse en étant trop généreuse damay damay facilité bu ma Latif Coulibaly jox hmm. euh, pour ma dugg si des femmes képp ku ñëw sama kër noonu lay doxalee parce que kenn waxuma ma on va revenir demain dama ñëw léegi léegi ñun ah, ubbi ma bunt bi léegi léegi. donc loolu plaisir bu muy bu mu lay jox. képp ku am chance jàkkaarloog man bëgg dugg sama rajo d'habitude je te laisse entrer facilement. Okay. je te fais pas revenir dans un mois de mois non je te laisse bët bi su ma lii gisee ay étincelle si sa bët. ma xam ne yow mii dangaa bëgg li ngay def. Mhm. dama lay bàyyi sa chance nga dem. donc là euh, les difficultés après xale yi ñëw di jàng si. parfois mën nañu di wóor di ne daf ma loo bañ ma fay alors ko ñoom ñoo ma war a fay. Ah. ñoom ñoo ma war a fay xam nga soo yooyu jàng animation. waaw loolu xale yaa ngi la koy jëwee nag. voilà da ma koy jëwee dafa liggéeyloo bañ ma fay parce que xam nga la may problème bi. Eh. dafay def weer ñu war ko jox facture bu mu fay. ma yërëm leen bañ lañ jox fay bi xam nga maa war a jox facture. su ma joxee facture ñu fay ma. mais lu tax ñu war la fay. formation du ñu fay. ok. yow dañuy ñëw nga jàngal leen. jàngal animation. di ñu fay. kon bàyyi woo micro bi yow ba tey yaa ngi si. ba léegi maa ngi si waaw. mais tout le parcours là suñu ñëwee xale yi fi jaar si ñun PNJ fan la ñuy jaar. nga seetloo ñoom sa expérience sax hmm. nga koy loué wala nga tabax ko. courant bi da nga koy jënd tous les jours. micro yi da nga hmm. a wax gratuitement. ñu fay la. boole ci ñu wax la lu tax dem la sa kër bàyyi sa kër ndey ñu jàngi foofu <laughs> sa ndey ak sa baay amuñu sijoo moo tax nga jóge sa kër ndey ak sa baay ñoo kër ndey kër ndey la maa joon nekk def ko maman di ko tuddee maman nax ko ba dugg këram mu jox la studio jëndal la courant jox la toilette soo sawee saw dam sawi ut ay bon ñu koy nettoyé après nga ne léegi nag danga lay dangay jàngi daal nga dugal si université radiophonique nga ne doo fay. kon de la yor. école de formation. tey rek maa ngi koy rappelé waat si sama page Facebook j'ai dit écoute euh, euh, euh Safir FM Sali FM en volet formatif. D'accord. léegi ku bëgg a wàññi naa ko ku fay ku bëgg a kii ku bëgg a da ngay fay cinquante mille à Dakar ou vingt cinq mille frais d'inscription à sali quinze mille à par à Saly mais vingt cinq mille à Dakar hmm. ñu ñëw jàng. xale yaa ngi fay seen formation léegi. ah oui waaw léegi yi nga leen di jox c'est reconnu. c'est par le c'est une c'est un diplôme de de de la station. ok c'est un diplôme de la station. donc c'est une radio qui est régulière qui est autorisée est autorisée euh, c'est pas une radio boo xam ne autorisée wuñu ko donc euh, ARTP jox ñu suñu fréquence et cetera ñuy fay suñu redevance ak yépp donc euh, loo fi jàng loo fi jàng après dañ lay jox sa attestation su fekkee fay nga sa formation ba mu jeex. soo fayalee su formation bu jeex mënu ma la jox attestation dama koy garder soo ñëwee fay na ma jox la ñoom xale yi ñoom ñëpp ñu si bëri ñoom day asku géey fan la jóge hmm. Cheikh Dia bi fan la jóge ci yow lañ jaar dama leen ngeen laaj ne fan lañu jaar yow laa jàkkaarlool kay tey yow laay laaj Cheikh Dia fii la jaar 2000 hmm. l'an 2000 ok d'accord day astu gi fii la jaar l'an 2000 Patra fii la jaar d'accord ñoom Biba fii lañ jaar hmm. ñoom PNG fii lañ jaar ñoom si sidaat affaire baa ngi bëgg a jeex di ñoom sidaat fii la ñuy jaar daal liste est tellement longue kon yow tey booy xool ñoo ñu nekk star pour la plupart fii la ñuy da ngay am mbégte damay am mbégte waa parce que euh, talent bi nekkoon ci seen yaram te xamuñu ko hmm. man maa ko génne ñu dem perfectionné ko feneen parce que bi ñuy rëcc démb su doon tey duñ ma rëcc waaw parce que ñu bëri woon sama kër ñuy xuloo di xeex ñii di dem di ñëw mais démb su doon ñëw am naa maturité boo xam ne dinaa muñ ba ba garder mes éléments parce que ce sont tous mes éléments voilà donc euh, donc c'est ça donc euh, incompréhension boobu bi am ak élèves animateurs yi mm. ñiy gaaw a ñiy riirandoo ñu neen di manipuler de l'extérieur parce que ah, quand oui. tu fais de la politique les gens pour te déstabiliser fu ne dañuy jaar pour déstabiliser dinañ jaar sa biir kër dinañ jaar sa ménage dinañ jaar si sa société après ngay comprendre mm. l'infiltration dafa am fii ñëpp la ñuy soo créé sa partie politique dina infiltré da sa jànk sa dañ koy dañ koy jënd hmm? su dëggurulee waaw sa jànq dañ koy jënd maa ngi doon waxtaan ak benn ancien premier ministre mu tudd kan la mu ne moom jànkam bi doon defar néegam sa nekkat yoo dañ ko dañ ko ko placé hmm? mu jënd sa gaañu ah donc bi ñu découvrir affaire bi dafa rusu rusu rusu ba après dafa mujj sa gaañu parce que di nga amoon confiance yi moom ba hmm. mu mu mu mu bett leen et il n'est pas le seul donc l'infiltration au Sénégal moo waaw dañ lay eef da gis benn nit une semaine deux mois dootoo ko xàmmee mu mel ni gan si yow. waaw parce que day joxe information. Hmm. di joxe information donc euh, donc c'est ça donc li ma nakari daal pour répondre correctement sa question yenn jafe-jafe yooyu mooy incompréhension yi. gis nga ñi doon waaw waaw daf ñuy liggéeyloo ba ñu fay et cetera mais un dix ans après ñoo dellusiwaat yi ñu gërëm hmm. ay xale rek la ñu woon. ñenn ñu ngi yi léegi ñenn ñu ngi voyage parce que man euh, dama doon doon accompagner man damay taal man man je je je crée des stars dama soxruma damay gis benn affaire bu talent bu sew si sa beauté si sa si sa xam-xam boo xam ne mi ngi si yow di sommeiller ma taal ko. valorise ko maquillé wu sax dama leen koy imposer balaa ngay dugg studio. Ah defar ba mu baax balaa ngay defar donc. kii sàggan bi ñu saggan bi ñu doon duggi deux un an après wala trois mois après su ñu demee seen kër les gens leur trouvent coquette mais yow léegi da soppeeku léegi da ngaa civilisé et cetera parce que damay ne li li doon nëbb si ñoom ñëpp dama koy taal pour ñu pour dama leen di valoriser man damay valoriser nit. nga fexe ñu bopp comme yow. dañuy donc il dañuy sa bopp. après soo soo soo sa bopp doo mën a avancer. voilà donc doo mën a franchir benn obstacle voilà da ngay da ngay faa sa bopp. di gën a góorgóorlu ba bés boo commencé parce que parfois tu peux même traverser des périodes de découragement mm. waaw parce que élection yi bi quand j'ai perdu mais assemblée tour assemblée nationale sa bëggatu ma woon ah image assemblée nationale su ma ko déggee damay parce que ku ma waxoon que du ma dugg assemblée la star d'ailleurs de législatives de 2012 ñëpp man na donc euh, comme ça ñu def et à, à dessein. Ils n'ont pas voulu voir parce que la décision venait d'en haut. Ça, ça a été très amer. Ça a été très amer. Donc voilà, donc c'est des mais c'est des expériences. Après après après da ngay xam 2019 euh, gars yi bi ngay xëccoo pour déposer liste euh, ba gàkku jàppante ak euh, Mimi Touré yëpp da ngay comprendre li ne si biir quoi. Mm. parce que loo nekk di créer sa parti defar as dafay réunion organiser say liste ñu xañ la élection gàkku depuis loo kenn déggatu ko parce que souffre ma mm. je sais qu'il souffre parce que ku ko waxoon ko doo bokk si élection présidentielle 2019 bi du ko gëm déception lay def daal day da traumatisé da ngay traumatisé da ngay mel mel ni ku nekk en yi mm. mais loolu après il faut du temps c'est le temps qui répare ça c'est ce que ak temps yi nag gàkku mi ngi commencé di génnaat nanka naan lentement parce qu'il a, il a commencé à diriger, digérer la présidence 2019, mais même durant la présidentielle, on ne l'a pas entendu. Ah, parce qu'il était tout traumatisé. i mm. Voilà, il n'a pas été le seul. Donc, i euh, il y avait Abdoulaye également qui n'avait pas participé. Bon, lui, on peut de, la, scène, mm. Par contre, Gaku, Khawana, c'est Yagotouti. Mm. Donc, à part ça, donc, euh, il y euh, même Aïssa Tassal qui, qui finalement a de, de rejoindre. Mmh. Et puis, euh, bon, je la comprends. parce qu'il faut exister en politique. Voilà, si tu as un raccourci, si tu un raccourci, tu pars. voilà je suis pas comme les autres nga xam ne dañuy critiquer à n'en plus finir non l'objectif c'est d'atteindre d'atteindre le, le, le sommet maintenant si euh, si tu as engraissé comme Idrissa Seck euh, nga xam ne tu es à quelques quelques années de la retraite euh, donc pour te présenter à une présidentielle mais écoute euh, tu prends le conseil économique social et environnemental voilà donc euh, donc c'est ça. ñu jeexal ak Ndella ba tey gëm nga ne kon yow palais bee Macky Sall nekk tey. yow di nga fa dugg. 2024 2029 gën a gëm. 29 parce qu'ils font du du un, un temps de préparation et beaucoup d'argent okay. ils font un temps de préparation beaucoup d'argent mais yàlla su ko tuddee kenn mënu si dara. mais yow gëm nga ko. que damay nekk président de la République du Sénégal mais absolument <laughs> yaa gëmul mais man dama ko gëm <laughs> absolument député euh, ministre et cetera président de la République du absolument après Macky Sall euh, ne, va pas se présenter donc euh, après si xam nga si Macky Sall ne se présente pas c'est un rajeunissement de de la euh, de, la classe politique et puis là s'il de la classe politique si par manque de chance pour Khalifa et Karim Wade ils ne se présentent pas kan moo fiy des pouf, Sonko, euh, je pense que tout est raté pour lui avec cette histoire de, de mars-là. Mmh. Et puis oui, oui, oui. Donc, ni ni ni mbow ci kaw bari nañu dé waye ñu nopi té mer té frustré il, il a commencé à rencontrer des départs là donc euh, il y a quelqu'un de Pastef de Tambacounda qui a démissionné je pense c'est une dame et puis euh, il commence à avoir des démissions toutes les personnes qui sont sorties pour casser ils sont pas tous de Pastef ah so pas tous de Pastef élection yi di ñëw bi ñëw rek li seet kanam raw li bët li li ka dal temps li ka dal temps yi euh, je vois pas Sonko président de la République du Sénégal hmm. ni en ok waaye gis nga fa sa bopp la ñu ngi lay gërëm bàyyi la nga tàggoo dem bi jeex ma ne gis naa ci bopp bu baax a baax a baax a baax a baax parce que avec les départs naturels avec le le le scénario qui se qui commence à s'installer gisuma euh, la recomposition politique je vois pas une euh, une femme ou un homme politique euh, capable de de me tenir tête mm. dans une présidentielle où il n'y a pas Macky ko d' accord ñoom ñëpp maa leen <laughs> aw dara lu ma ci teg dee la nga daal di tàggatoo ñoom ñëpp maa leen mën <laughs> jërëjëf en tout cas amoon naa mbégte lool dalal la ci démb ak tey pour wane ne rek am na tey jigéen ñoo xam ni ay jàmbaar lañu ci domaine yi ñu nekk mm-hmm. euh, bu ko defee mm-hmm. yeneen jigéen yiy dégg yaakaar na xëy na ñu war a nekk ci ginnaaw di tàccu ak yooyu rek ñu am luñ ci jëlee loolooy jubluwaay bi en tout cas jërëjëf je serai jamais derrière donc toujours devant et comme je serai toujours devant c'est maire c'est euh, président de l'Assemblée nationale c'est président de la République du Sénégal mais lu nekk ak waxtam ñu jot yomb te muy <laughs> jërëjëf Ndella Madior Diouf la ñu doon dalal ci démb ak tay ci Rewmi FM euh, weeru mars bi ba tey ñu jagleel ko jigéen ñi dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaan ak beneen jigéen ci leneen di gërëm jaawo jàlloo mi woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kaddu gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci Rewmi officiel mooy suñu page ci YouTube ñu yendoog jàmm